qu'il a beaucoup de volonté. Hmm? Mhm. Hmm. am na yéene aussi gis naa taxawaay bi. Mhm. mais est-ce que am na moyen yi. et mhm. est-ce que du point institutionnel. aussi ñu koy protéger moo tax ma bëgg exemple bi nekk. parce que le mu indi ay leeral ci expo Dubaï. exactement parce que même Maroc tey. moom xam na bu baax Maroc comment ça se passe. dañuy sécuriser. c'est-à-dire que le producteur mali l'exportateur marocain. il est protégé. tey jii exportateur sénégalais bi sur le même produit. di nga gis ne kii amul possibilité dugal ko foofu comme nu mu ko neexee mm-hmm. alors que fii nag dafa xaw dafa xaw a kii mm-hmm. est-ce que sur ce plan aussi au-delà de liñ la dénk yow mm-hmm. est-ce que y a une intelligence par rapport ak ñi ci war a intervenir yëpp pour permettre la nga dimbali l'exportateur sénégalais pour mu mën a agir au niveau local et au niveau aussi international bon y a quand même y a un réseau euh, man bon déjà y un réseau réseau appui entreprise alors le le le réseau appui entreprise ñëpp a ngi ci su ma jëlee l' agence de régulation des marchés ñoom ñi ngi ci réseau appui entreprise euh, bu ma jëlee yenn filières yi euh, parce que ñun on considère quoi qu'on dise le premier marché export c' le marché local c' le marché local euh, tey bu ma jëlee filière filière nu mu tuddati volaille mm. bu ma jëlee volaille volaille à l'origine donc ya y une petite production ñuy produir tuuti di exporter tuuti di produire tuuti di exporter tuuti zone Mali et cetera on s'est rendu compte que volaille au fur et à mesure il même eu de ya y y a de nouveau métier yoo xam ne ñi ngi ci kii ñii ñi ngi ci euh, pondeuses yi ñii ñi ngi fii et cetera euh, le Sénégal bon <laughs> ñu wax ko ci wolof ñu gis que ne am na feebar bu fi ñëwoon muy euh, virus h 1 bi boobu ñëwee ah Sénégal ne ah comme loolu am na ñun dañu protéger suñu suñu volaille mhm. donc importation dootul am bu ngeen bu ngeen gisee bu njëkk importation bu bëri dafa noon nekk ci ay aile de dinde ay yooyu yooyu dafa bëri ñu tëj ko mhm. mais loolu attaqué nañ ñu si à plusieurs reprises à l'OMC mhm. man ñëw naa benn forum AGOA fekk Amérique ci seen bopp ñoom ñoo ñu attaqué foofu. ñoom bàyyeeguñ ñu ba tey de. waaw chaque ñoom. ñun kay ci volaille bi rek lañ soxla. ci volaille bi ñoom fu ñu ñëw rek ñu ne poultry ñoom poultry rek. waaw poultry xam la bon même les les les rencontres bilatérales ñoom dañ naan waaw mun nañ def li mun le mais volaille bi. Ah. foog ngeen ubbi ko. mais quand foofu le Sénégal a joué un rôle important. Euh, beneen bi tamit mooy euh, gis ngeen léegi euh, le le l' agence de régulation de des marchés mm-hmm. récemment. li ñu li ñu les ouvertures et les fermetures sur l'oignon oignon bi su ngeen ko gisee dañu produir lu bëri parce que li au départ produire ñoon lu bëri ñu dem ba benn instant donc on est arrivé jusqu'à trois cent quarante mille tonnes ça dépasse même li nga xam ne moom moom lañ mënu consommer au niveau au niveau national dinaa ñëw un peu après sur l'exportation qu'est-ce qu'on est en train de faire dem nañ au départ ñu tàmbali def six mois de gel après sept mois ba léegi dañu euh, yegsi nañ ba huit mois de gel mhm. période boobu on permet à ñi nga xam ne ñoom ñooy produit ñu mën a euh, également euh, commercialiser au Sénégal mhm. à côté ñun ñu liggéey de telle sorte que ñi nga xam ne am nañ yenn variété yoo xam ne soxla nañ ko à l'extérieur ñu ànd ak ñoom à l'extérieur comment on fait on fait ce qu'on appelle les missions circulaires euh, Guinée Gambie kii euh, euh, Guinée Gambie ak Mauritanie mhm. ak Côte d'Ivoire euh, Guinée ma euh, Gambie Mauritanie Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'on fait am na deux variété yoo xam ne am nañ ci marché mooy violet de Galmi ak Mercedes Mercedes bi mooy bi nga xam ne dafa weex am am am ndox hmm. bon ah, il paraît que <laughs> Sénégal bëgguñ ko noonu hmm. mais à l'extérieur par exemple euh, dañ ko soxla lu bëri donc ñun partie boobu dañu ànd ak ñoom yóbbu leen fexe ba euh, ñu euh, ñu mun commercialiser. Mhm. mais bon comme j'ai dit euh, y des choses à à, améliorer. Ouais. des choses à améliorer mhm. pour pour ñu gën ci dem. Mhm. bon mbir mi comme j'ai dit yenn yenn waxtaan dafa am solo parce que. Euh, effectivement gëm-gëm bi c'est bon mm-hmm. mais nañu gën a gën a dimbale ñi nga xam ne euh, tey jii nii expo Dubaï bi nan nga ciy waajale waaw expo Dubaï bi tamit mm-hmm. euh, je pense que c'est c'est le premier niveau de de de de la de la relance économique mm-hmm. alors expo Dubaï dama bëggu également ñu gën a xam lan la parce que ñu bëri expo dañ foog ne foire la ñii dañ foog ne salon la et cetera ça n'a rien à voir expo juróomi at yu nekk lay am. yenn saa itam délégation yi dañ ciy gis n'importe qui. effectivement loolu tamit xaw ma nu demee loolu loolu ñun ñun ñun dañ ci ñun duñ ci. di ngeen ci veillé duñ ci ah. loolu moom duñ ci caaxaan. parce que bu ñu bu ñu bu ñu war a dem ci expo comme j'ai dit ku fa teg sa tànk boo demee ñëw li tax nga dem ñëw war nga ci indi loo xam ne peut-être fukki yoon li nga dépensé war na ko ci nekk. loolu mooy mm-hmm. principe. lu jur dara loolu mooy principe euh, expo lan la. dañu jël nombre de pays ñu ne tey cent quatre vingt douze pays téeméer ak juróom euh, ñeent fukk ak ñaari réew dañu daje ci benn zone ñu ne ñoom dugal nañ sept milliards de dollars ci zone boobu pour tabax je dis bien sept milliards de dollars soriwul budget Sénégal foofu réew bu nekk da ngay ñëw ak sa secteur privé hmm. secteur privé de tous les pays dañuy ñëw foofu quasiment quatre-vingt pour cent des chefs d'État dañuy ñëw foofu ci sur les six mois quatre-vingt pour cent des chefs d'État au niveau mondial dañuy ñëw te bu ñuy ñëw dañuy ñëw ak seen secteur privé te secteur privé yooyu dañu nekk sur le réseau euh, bi nga xam ne la ñu naan l'expo business matching mooy lan ku ci nekk da ngay dugal am na benn plateforme tey jii nii chaque entreprise secteur bu nekk dañ lay dugal foofu suñ la dugee loolu foofu cent quatre-vingt-douze pays yi dañ lay gis hmm. foofu ci plateforme may ma joxe benn exemple kii mi ngi ci mbirum jën waa Japon dañu soxla jënd li nga xam ne mooy jën buy jógee Sénégal ñoom si plateforme bi dañ koy gis suñu ko gisee ñu ngi koy gisee à partir du Japon dañu préparer dañu naan ah Sénégal kañ la ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci jën war a ñëw ñu ne 15 novembre ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci jënd ñu ñëw foofu def benn forum économique foofu la ñu daje pour xool naka la ñu defee jënd ak jaay bi ñoom ñu fexe ba japonais yi nekk foofu ñëw ni ko japonais yi di defee noonu la ko américains yi di defee noonu la ko français yi di defee noonu la ko euh, marocains yi di defee et cetera donc muy benn rendez-vous permanent de tous les secteurs privés et institutionnels du monde entier pendant six mooy le plus grand événement mondial que Expo. Euh, li muy laaj ci xaalis tey jii nii euh, Dubaï dugal nañ deux euh, euh, deux mille deux cent milliards ci ci ci ci ci rek tabax bi noonu. coupe du monde de football mooy coupe du monde économie. ah d'accord non bokkul sax bokkul. Mm. coupe du monde mun nañ ko defar Afrique. coupe du monde. Afrique du Sud organiser na ko y a aucun pays du Sud bu mun a organiser expo c'est musul am hmm. Sud laa wax de même Amérique du Sud yooyu yëpp mënuñ ko organiser parce que hmm. dimension bi moo toll noonu comme coupe du monde la en fait ëpp na mag coupe du monde ëpp na ko <laughs> dépassé na parce que économie la léegi économie bi mi ngi doog a wu nii nii nii nii ci expo bi su ngeen gisee ñun ñu dem fa semaine dernière sa veut dire que ñoom ñi ngi ñoom nekkatuñ ci Covid ñoom ñi ngi ci affaire bi donc ñun suñu secteur privé ñun ñu ngi liggéey ak ministère yëpp c'est-à-dire ministère du commerce ministère des infrastructures ministère de la pêche ministère euh, de des sports et cetera quel que soit ministère bi dañu liggéey ak yow préparer la benn quinzaine ne la quinzaine bi kat ñun parce que ñun dañuy tabax li ñu naan pavillon Sénégal à l'expo pavillon Sénégal bi euh, ce sera exploité par chaque ministère pendant quinze jours ñu la quinze jours yi nag fexeel ba boo ñëwee ñun ak yow dañu liggéey xool lan moo tax ngay dem. waaw ah. si c'est pas intéressant c'est pas la peine. oui il faut procéder par élimination parce que ñu bu dee pour villégiature rek moom bu ñu dem. ah non non non c'est expo moom. Ah, loolu amu fa. parce que parce que parce que ñun on a que six mois. gis ngeen fii nii euh, centre bi nii moom mooy centre bi mooy fii ëpp solo ci kii bi mooy li ñu naan Alwasal Plaza. léegi ñun lan lañ ci mën a xaari ñun comme comme. ñun gis nga suñu pavillon bi pavillon bi gën a jege Alwasal Plaza Sénégal la. parce que ñoo njëkk suñu suñu place ci cent quatre vingt douze pays léegi ñun suñu suñu suñu intérêt fii mooy quel que soit mm. le secteur secteur privé bi ak projet yi nga xam ne am nañ ko ñu ñëw dajeek secteur privé concerné yi des cent quatre vingt douze pays bu ñu juum nag mm. expo zone internationale la c'est pas ça n'appartient pas à Dubaï expo zone internationale la ça appartient aux cent quatre vingt douze pays soo fa ñëwee ñoo fa pour dajeek waa Dubaï parce que loo tamit dañu dañu koy dañ dañu dañu juum mm-hmm. da ñëw pour dajeek japonais yi pour dajeek coréens yi pour dajeek chinois yi pour dajeek et cetera et cetera mm-hmm. loolu ñun euh, ñun ñooy def travail bi pour les ministères concernés mm-hmm. sauf que sauf que foofu jafe-jafe bi ñu am souvent da gis par exemple benn ministère buy dem ñu waajale non xam nga booy dem pour dajeek ay japonais par exemple nga jël délégation boo xam kenn du ci làkk anglais kenn làkku ci japonais kenn làkku ci yóbbu leen. ay analphabète nga fa yóbbu xam naa ci foire yi lay am. bu ñuy def ay foire rek na accompagnement expo gis nga expo. expo nag c'est c'est différent parce que expo déjà ñun déjà ñun. Euh, les les les vidéos promotionnelles. yi jógee ci ministère yi. Mm. c'est des vidéos en anglais en arabe en français français bi quand même c'est on francophone dañ ko ci boole. donc d'abord loolu. deuxièmement sur place bien entendu ñun on a les traducteurs ñun la oh. c'est-à-dire ñun mm-hmm. ñooy indi les traducteurs et cetera mm-hmm. et et même le business machine ñun ñoo koy def cest dire que aussi bon ministère yi dañuy ñëw mais mais liggéey am na am na liggéey boo xam ne nag suñu liggéey la c'est-à-dire ñun ñoo war a préparer mm-hmm. képp ku ñëw bu buñ la nee euh, identifier nañ yow ses sa besoin ñun ñooy liggéey nag en amont avec l'ambassade du Sénégal aux Émirats avec Euh, euh, la partie économique bi nekk foofu les chambres de commerce et même les étudiants yi nekk foofu mettre leen à contribution ñoom dañu participer c'est c'est ce qu'on avait fait à Milan d'ailleurs parce que ñoom tamit xam dañu xam foofu xam nañ également langue bi et cetera donc donc c'est vraiment benn rendez-vous économique extraordinaire et je pense que boobu euh, la journée du Sénégal ce sera inchallah le 13 donc on pense que dina nekk benn benn Sénégalais nekk foofu hmm?